mbokk yi jërë ngeen jëf seen ànd ak télévision Futur Média ñoo am mbégte ànd ak yéen ci xibaaru marax yi ñaari ponk yi ci gën a fës euh, bokk na ci député yi voté ca assemblée nationale commission d' enquête parlementaire ca coowu guerre ba jib ca conseil constitutionnel ana ci yan anam la xët-xët ya ca a am Thierno Alassane Sall mi jàpp ni dañ ko cong ci biir plénière boobu ak càkkuteefam euh, clamé def plainte ci waa député PDS yi mu joxoñ baaraamu tuuma Euh, membre commission yi ak yi mi bañ ne duñu bokk ci biir commission ba gannaaw 120 députés voté nañ ko 24 euh, ñoom ñoo ko contre amul kenn koo xam ni euh, gàntal nga kon wala abstention maanaam liñ naan abstention dinañ ci dikk léegi ci yaatal ci mbir moomule buñ ci toftalee taax ba daanu ca xaar yàlla ak juróom ñi ci ñàkk seen bakkan am fukk ak juróom ñaar ñoo xam ni am nañ ci ay gaañu gaañu ba tax kuréel gi saytu kaaraange taax yi inspection générale de bâtiments fare ci euh, nguur gi xëyoon foofu ca xaar yàlla dinañ ci dikk ci reportage gannaaw bàkk bi ñu leeral loolu yëpp. mbokk yi jërë ngeen jëf seen ànd ak télévision Futur Média xibaaru marax yi ni ñu leen ko waxee ci ponk bu njëkk bi ci boppu xibaar yi 120 députés ñoom ñoo voté pour 24 contre euh, zéro abstention noonu la ñu taxawalee ca plénière euh, commission d'enquête parlementaire jëm ci coowu ger bi nga xam ni euh, dañ cooy tudd njiitu wala tête de liste candidat présidentiel Benno Bokk Yaakaar Amadou Ba ba tax. député Benno Bokk Yaakaar ni looloo tax ñu ànd ak waa PDS voté euh, commission loo boobu pour setal seen deru candidat lépp leer euh, waaye euh, juróom-ñeent membre ñooy nekk ci commission ba waa yeewi askan wi ñoom député yi bañ nañ ne duñu ñu ca commission boobu ñu indi gis-gis yin gannaaw ba ñu voté kenn ku mel ni Cheikh Oumar Sy àdduna ci ñu teewlu ay kàddoom gannaaw ba laaj ak tontu dox digganteem ak euh, Chérif Dia moom jàngatam euh, mu ngi jëm ci ancien député bi mu doonoon ak taxawaay gi mu am jamono ji ci élection présidentielle bi. assemblée nationale li nga xam ne tey mooy kuréel bi ñu bëgg a teg muy commission d' enquête parlementaire bi lu war a mën a am la parce que ci euh, ci assemblée nationale lu lu normal la mais lenn li nga xam ne tey mooy jaaxal nit ñi mooy li nga xam ne ñu ngi ci juróomi juróomi fan rek moo des ci ci ñu ngi ubbi campagne bi. lu tax ñu xaar ba léegi ñu bëgg teg benn commission d'enquête parlementaire day indi jiixi jaaxa ci bopp sénégalais yi parce que nee nañu tey ne dañuy seetal seen teru teru candidat parce que am dafa am lu ñu ko tuumal mais ñoom ba ñuy def communiqué bi loolu la ñu waroon jiital ne sénégalais ñun kat dañoo dañuy défendre suñu candidat parce que dañ koo tuumal ci li nga xam ne tey mooy ci processus électoral bi mais ñoom defuñu loolu dañuy dem carrément génnee benn communiqué pour soutenir li nga xam ne tey mooy li opposition bi bëgg def teg benn enquête jëmale ko tamit ci ay juge ay magistrats yoo xam ne seen i seen i seen i probité morale président de la république moo ko garanti moo leen tànn donc ñooñu tamit mu ñu leen seetaan ñu tuumal leen c'est euh, ci ay lenn loo xam ne mën na a tey euh, seen seen jeexital carrière non man li ma yaakaar ne tey bu bu crise bi ñu bëgg a mën nañ ko mën na bañ a que processus bi sori na sori boo xam ne sénégalais yi du ñu seetaan ñuy reporter élection yi dañ cee sonn dañoo bëgg a dem ci yeneen activité am yeneen yi nga xam ne tey moo tax seen kanam yi nga xam ne tey muy wutum xëyum ji xale yi muy xëyum jigéen ñi muy santé bi muy éducation bi muy mbay bi muy leneen ak leneen loo xam ne tey sénégalais yi jàpp nañ ne tey war nañ dem vingt cinq février fal président bi comme bi neen mën a bi neen mën a jàppale ci loolu ñu ñu avancé ci leneen li ñu war a régler nag ci processus électoral ñëpp a toogaat waxtaan ci. ca séance plénière boobu ñu doon voté ngir commission d' enquête parlementaire bi taxaw Thierno Alassane Sall jàpp ne dañ ko fa cong ba tax euh, mi ngi sàkku ci président assemblée nationale mu xaatim këyit bi nga xam ni danañ ko awale fi war ngir euh, ñu yóbbu mbir yi fa mbaxane doonee benn dana porter plainte maanaam euh, Habib Faye la dénk kàddu yi ànd ak Alioune ci caméra bi. La caravane du Sénégal va passer. Le Sénégal plus bas que terre. parce que oui fi mu toll nii deru Sénégal ci boppam lañu ñu salteel li ko waral di assemblée nationale bi nga xam ne warul sax représenter peuple bi li ñuy def jamono ji mooy di jéem a salfaañe di jéem a jaxase suñuy institution yi man nag ma leen di xamal ne munu leen maa teree wax gannaaw sama réclamation amatu leen ci dala lu ngeen di wax léegi nag salfaañe institution yi loolu moom moo leen dese waaye na leen leer ne élection yi dina am mu leen di neex mu leen di naxari président yaa ko teewee nag dañ ma agressé fii ci hémicycle bi te nag dinaa porter plainte dañ ma agressé ni ñu woon kon député ami Ndiaye ñii bi bu yeboon na ko bind ci sa rapport te dinaa porter plainte nag contre ñii nga xam ne ñoom ñoo ma agressé fii coow li yëpp li ko indi ñu fàttali ne mooy ñàkk bokk euh, Karim Wade ci euh, élection présidentielle euh, bi ñu dëgg dëgmal ñàkk boobu ñàkk bokk boobu waa Union européenne moom di sàkku ñu am ci taxawaay bu am solo ci ñi nga xam ni kalifie nañ war a bokk ci joŋante bi ba tax 130 ci ñoom téeméer ak fanweeri observateur dinañ ko fi indi ngir lépp jaar ci yoon. Euh, Malin Bjork noonu lay wuyoo moom mooy chef de mission bi ànd ci compte rendu beeg Dissa Prera ak euh, Mohamed Dieng ci caméra bi. téeméer ak fanweer ci ay observateur dinañu leen déployer ba sub élection yi ci réew mi yëpp waaye laata bés bi dina am fanweer ak ñaar yoo xam ne dinañu saytu processus électoral bi. ils vont être dans toutes les régions et euh, les 32 les 32. fanweer ak ñaari observateurs yi dinañu leen tas ci région yëpp ci Sénégal dinañu tamit nekk 16 équipes ba sub élection yi nag dina am ñu ñoo xam ne dina ñëw jàpp ci liggéey bi euh, boo ko boole lépp dina ko téeméer ak fanweer fanweeri observateur. ce sera 130. plus ou moins 130. ci seen jàkkaarloo ak presse bi mission d' observation bu Union européenne ñëw ci importance su bépp candidat boo xam ne conseil constitutionnel validé na sa candidature nga mën a def campagne comme ni ko loi bi tëralee. par rapport à la participation euh, euh, aux candidats de euh, campagne euh, euh, tout en, en ci mbirum participation candidat yi nag ñi nga xam ne conseil constitutionnel dafa validé ñun dañu jàpp ne dafa am importance ñu bàyyi leen ñu def campagne comme ni ko ñëpp di defee ñu nag moytu mbirum kumba am ndey ak kumba amul ndey te it am nañu yaakaar ne loolu dina am. c'est c'est important que tous les candidats puissent faire campagne euh, en égalité. beneen question boo xam ne mission bi àdduna si mooy ñu fexe ba bépp institution boo xam ne dafay intervenir ci processus électoral bi mën koo teg si yoon lu ci mel ni conseil constitutionnel DGE ak Sénat. C'est clair que par rapport à la première question, c'est clair qu'il y a des institutions clés dans un processus euh, électoral. Euh, euh, il y aura notamment le, le la DGE, le Sénat. dafa am ay institutions yoo xam ne dañoo am solo ci bépp processus électoral te bëgg nañu institution yooyu mën def seen liggéey ni mu waree te loolu nañ ci veiller bu baax a baax lu ci mel ni conseil constitutionnel DGE ak ñi nga xam ne ñooy waa Sénat. processus électoral parce qu'on est tenu par notre mandat aussi de ne de, euh, de pas interférer dans le processus électoral et le, je tiendrai tout pleinement à, à ça. mission d'observation bi nag li mu wax dafa leer xolam du intervenir ci processus électoral bi te it dina amal ndaje ak candidats yi société civile médias yi ak population bi mission bi ne faral kenn te it kenn du ko tënk. ñu wax ñu wax ci taax ma màbb ca xaar yàlla juróomi nit ñàkk seen bakkan mu am fukk ak juróom-ñaar ñoo xam ni am nañ ay gaañu gaañu euh, tey ci suba waa kuréel gi saytu mbirum kaaraange tabax yi fare ci nguur gi xëy na fa ngir leerlu saytu ngir ñu indi it euh, saafara ci euh, jafe-jafe yooyu nga xam ni nemmeeku nañ ko ci taax yi màbb Abdoulaye Diop ak Thierno mel ni teewoon nañ foofu ca xaar yàlla juróom am ci ay gaañu gaañu lii tabax ci kaw ay nit ba faat mat juróomi bakkan fukk ak juróom am ci ay gaañu lii nag mi ngi amee ci xaar yàlla ci guddik altine jëm ci talaata bi paase lii nag tax bâtiment yi nga xam ni dëkk fa wóorul bari lool ci Sénégal ci atum 2021 am na lim bu mat junni ak téeméer ak juróom-ñeent ak juróom-benn yu ñu lim ci Sénégal waaye juróom benn téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ci Dakar la ñu nekk loolu tax ñuy laaj lan moo waral tabax yu bëri di daanu ci biir Ndakaaru ñii di liggéey ci inspection générale de bâtiments amaloon nañ tey benn visite ci xaar yàlla ci bërëb bi nga xam ni fa la ji amee ñoom nag ñi ngi ñuy nettali lan moo waral bâtiment bi daanu été yi mu jël fer yi mu jël pour téye euh, daal boobu noonu dafa foogoon ni daal dong la waaye boo ko defee ci R plus 3 nga ñëw ci fondation yi teg fa été téye woo daal batiment bi yëpp nga téye donc loolu moo tax nag bu ngeen xoolee euh, sànq ci ci ci ci visite bi gis ngeen ne fi nga xamee ne foofu lañ gasoon di bootal poto yi foofu noonu la euh, batiment bi daal di penché woo daal di daanu. beneen jafe-jafe bi nga xam ni waa UGB nemmeeku nañ ko ci batiment bi nee na dañ ko bëgg a defaraat waaye respecté wuñ fi nga xam ni. moom la ñu war a jaareele yoon wi. waaye boo dee defaat réhabilitation da ngaa war a demaat ci mairie ba mairie ba daal di jël dossier bi daal di koy envoyé suñu service yi nga xamee ne ñoom ñoo fi nekk moom mooy direction euh, régionale de l'urbanisme yi ñu càmbar daal di xool ndax euh, ni nga waree def est-ce que loolu noonu méngoo na ak euh, li nar a sàmm bakkanu ñu fa nar a dëkk. kii di directeur de la construction et de l'habitat Amadou Thiam nouveau code de la construction andi na yeneen yu bees yi nga xam ni bu buñ ko respecté woon dina tax ñu dëkk ci tabax yu mel noonu seen xel mën a dal ci kër gi. boo calculer ba pare ñu xool ndax yow bâtiment bi ngay tabax nii est-ce que suuf si càmbar nga ko du suuf yëpp ñoom ñoo mën a attan bâtiment yëpp. am na suuf yoo xamee ne rez-de-chaussée dong lay attan am na bâtiment yoo am na suuf yoo xamee ne mën na attan R plus 10 wala am na yoo xamee ne suuf yoo xamee ne pour mu attan loolu il faut ñu. tabaxee il faut ñu jël ay mesures balaa loolu di mën a am. nee dinañ amal ay daan ci ñi nga xam ni ñoom ñooy bàyyi seen kër ci anam yu mel nii ndax li mu mën a faat ci ay bakkan bëri na. jàmm dellu si na ci ICS euh, bu Mboro gannaaw ay euh, jàmm ndax euh, grève bi toll ci benn ay bés liggéeyuñu. seeni payoor euh, yokkal nañ leen ko bu ñuy xayma ñaari lu jege ñetti milliards ci suñuy koppar euh, lañ leen a yokkal euh, ñi ngi ko xaatimoo nag ca gouvernance bu Thiès ci kilifteef gouverneur bi di Oumar Balde Cheikh Anta ci leeral liggéeykatu ICS yi toogoon benn ay bés nag bankoon seeni yoxo liggéeyuñu amoon ay mbébét yu ñu tegoon ci taabal ji tey jii de liñ doon laaj lépp saafarawu na. point yi c'est c'est les augmentations de salaire. le pouvoir d'achat des travailleurs day amélioré wu de manière considérable def naa dans l'histoire des ICS ñu ngi doog am augmentation. bu ñu sante gouverneur ba pare nañ sant direction de travail bi nga xam ne nii moo ko délégué woon liggéey boobu pour mu def sant aussi directeur direction générale des ICS. parce que bu ñu ci jàppaloon aussi bugg juboo juboo du am. directeur général des ICS moom nag rafetlu na lool taxawaay bi nga xamante ni gouverneur bu Thiès taxaw na ko ba déggoo am ci diggante direction bi ak liggéeykat yi. ci fekk dañoo seet ak délégué yi li nga xam ne du gaañ société bi ci dana amal njëriñ personnel bi tey loolu lañ def bésu tey le 30 janvier 2024. ci ma profité ci occasion bi pour gërëm le gouverneur de la région de Thiès. bi nga xam ne moom moo yombal négociation yi. gouverneur bu Thiès. moom nag nee na négociation yi de metti woon na lool waaye yàlla def na ci jàmm. ba quatre augmentation man mun naa ko lim ci samay demande avant signature accord ngeen dem lever un mot d'ordre à la salle ça n'a jamais eu dans l'histoire syndicale. gouverneur bu Thiès ñaax na ñaari parti muy syndicat bi ak direction yi. ñu topp lii mu leen digal. dama ne ICS na ñaari parti yi xam que ñoom yàlla daf leen boole. maa ngi sant aussi direction générale Alassane DG. di la wax ne nitu jàmm nga Alassane wax naa ko waa direction générale man leen da ngeen di yokk respecter les délégués syndicaux et les travailleurs que vous avez aussi yéen wax naa ak yenn diggante mbokk ak mbokk dal dafa baax lâcher par moment dafa baax lii bon mooy extrémisme ak radicalisme. gouverneur bu Thiès rafetlu na taxawaayu Mody Guiro ak nag responsable syndicaux yi nga xamante ne bokkoon nañu ci négociation yi. hôpital Roi Baudouin bu Géejawaay ña fay xëy bëgg ñu indi leeral ci koppar ya nguur gi nattoon ngir ñu yeesal hôpital ba ñaari at yi ngi yéex na lool ci seen gis-gis janoo nañ ak taskati xibaar yi ci teewaayu Maymuna Njaay Abdoulaye Anne ay liggéeykat yu am lu leen métti ci conseil d'administration bu seen hôpital nu muy doxee ñi ñëpp dañoo bokk nag fare ci personnel bu hôpital Roi Baudouin li ñu sàkk woon bu yàgg ba léegi ñu ne ñu xoolaat plateau technique bi. au temps de Diouf Sarr ministre de la santé moom moo ñu ko joxoon pour ñu mën a defar suñu labo bi léegi 150 millions yooyu ba ñu doxee ba defaruñu labo bi parce que y avait problème wala leneen moo taxoon defaruñu ko. ba ñu doxee ba defaruñ ko 150 millions yooyu mu ñëwaat encore à cette année là 2023 mu ñëw ñu demandé ko fii devant le président du conseil d'administration le vice-président du conseil d'administration 150 millions yu ñëwaat génnaat parce que instant boobu dañ ko demandé woon question ndax booy defar labo bi di ko toj di ko defar ndax xaalisu hôpital bi nga koy defaree wala 150 millions yu ñu la joxoon nga koy commencer. moom mu ne 150 millions yooyu du si tontu. jafe-jafe yooyu nag li muy indi rek euh, mooy euh, service yu bari fi mu toll nii dafa sooxe syndicat bi nee na foog ñu def ab audit. on a le droit de savoir ne 150 millions yooyu fan la jaar moo tax ñuy demande ministre de la santé ak ministère yëpp ñu yónnee fii inspecteurs yi ñu ñëw def audit. bu ñu defee audit ñoom dinañ xam ndax travailleur roi bu ne li ñuy wax dëgg la wala du dëgg. te man leer na ma leer ne bu ñu defee audit dina gis leneen loo xamante ne ñun lu raw suñu njort la wala leneen loo xamante ne waxuñu ko woon fii moo tax encore une fois ñuy interpeller ministre de la santé parce que li ñuy dund nii mësuñu koo dund ci Roi Baudouin depuis quelque temps y a service yu ci demee ni radiothérapie bi euh, doxul boobu ba léegi am na ñaari weer malade yi léeg-léeg da nga leen bindal garab sax ñuy wër da leen di yërëm fu ne la ñuy wër pour am ko laataa nag ñu indi pexe ci euh, seen jafe-jafe euh, syndicaliste yi féete ci hôpital Roi Baudouin bëgg nañu conseil d'administration bi buy jël yenn dogal mu dékku seen xalaat brigade service des jeunes bu Tëngéej euh, tegoon loxo ci vingt cinq tonnes ñaar fukk ak juróomi tonnes ay euh, mbir yu ñuy jëfandikoo askan wi rawatina ci wàllu ñam ñam yi moom buñ koy xayma mët na vingt cinq millions ñaar fukk ci suñuy koppar daal di nañ boole lépp euh, lakk ñoom waa brigade service d'hygiène foofu ca Tëngéej ci leeral ab du Diouf Diagne ànd ak Ahmadou Bamba Samb ngir mën a aar askan wi ñu mucc nag ci jiyee yi nga xam ne ñam yu périmé yi nag mën nañu koo indi lu ni mel moo tax brigade départementale bi yor wàllu hygiène nag ci Rufisque daal di lakk lu tollook ñaar fukk ak juróomi tonnes si ay produits yoo xam ne nag kenn waru koo dugal gémmiñ ñu daal di koy jëlee nag ci marché yi nga xam ni moo nekk ci département bi. produits yi baaxul parce que c'est des produits yoo xam ni produits la yi nga xam ne seen date de péremption jeex maanaam produit bi bu jeexee ñoom dañ ko war a retirer yi mais commerçant yi duñu ko def ñoom dañuy jël produit bi ñu bëgg téye produit bi pour di ko écouler waat di ko jaayaat léegi nag li mu mën a def mooy li ñuy wax les maladies d'origine alimentaire donc ay maladies la yoo xam ni bon mën mën nga ci am jaare mën nga ci am yeneen jàngoro yi nga xam ne ay feebaru biir laak yooyu puisque ay micro-organismes yoo xam ni ñoom ñoo ci nekk te micro-organismes yooyu moom la ñu naan les micro-organismes pathogènes micro-organismes la yoo xam ni dalay jox ay jàngoro mën nga si sax ñàkk sa bakkan ñaan ñu ko yàlla ngir nag weñ loxoy commerçant yi nga xam nag dañoo dëgër bopp ay contrôle yu am solo nag dinañu ko amal bu ñu sukkandikoo ci adjudant Daouda Touré amuñu guddi amuñu bëccëg brigade bi vingt quatre heures sur vingt quatre agents yi ñu ngi fonctionner donc da leen ñaax euh, sonju leen pour contrôle bi nañu ko gën a taral ñuy wax commerçant yi nga xam ni ñi ngi def naka sudul noonu nañu bàyyi pratique yooyu ndax service d'hygiène bi ngi nekk ci département de Rufisque Euh, son suffisamment vraiment motivés maanaam jox nañ leen ay junkukaay yu doy ba nga xam ni kër yéeg ruq-ruqaan yeeg fépp fu boutique nekk fépp fu marché nekk dinañ fa dugg gën a taral contrôle bi gën a ñëwal contrôle bi. commandant Daouda Touré nag di sàkku ci askan wi ñu gën a bàyyi xel nag produit yi nga xam ne dañu koy jënd nee na nag ñuy faral di xool date bile ndax jeex na wala jeexul la. GMI bu mbuur euh, camp ba tuddee nañ ko kolonel Mayata Ndiaye ak euh, bâtiment yu yees yoo xam ni ay jigéen ñi lañ ko jag jagleel ci GMI yooyu ci kilifteef euh, ministre de l'intérieur Sidiki Kaba teewe woon na kon ndaje ma nday Mati Dieng ak Mamadou Gueye ci leeral. talaata jële lañu ko dalloo congé bu yees bu nekk ci mbuur ñu tuddee ko ndem si yàlla si colonel Mayata Ndiaye nekkoon officier boo xamante ne ci bataillon des parachutistes la bokkoon. dafa bokk ci investissement bi nga xam ne président de la république Macky Sall na ko mooy densification du maillage du territorial maanaam am à travers le Sénégal fépp Sénégal police de proximité bi nga xam ne. dina tax kaaraange réew mi ñu assuré ko di ni mu ko bëggee. Cheikh Issa Sall meeru Mbour ne kontaan na ci loolu ndax mu ne makkaan bu ni mel ay ngëneel dong la mën a jural département bi. dinañ fexe ba nekk ci watu force de défense et de sécurité yi ba lépp lu ñu soxla ñu nekk seen wet bijou bi dinañ ànd ak ñoom ci entretien bi dinañ ànd ak ñoom ci maintenance bi dinañ ànd ak ñoom chaque fois que de saa bu ñu soxlaa. la commune jëwriñ bi Sidiki Kaba ne nag liggéey bi du yem fii dinañ koy yeggali ak yeneen i makkaan yoo xamante ne war nañ ko taxawal ci biir Sénégal ngir sàmm askan wi seen kaaraange waaye itam seeni alal. la fan yi ñëw nañ nekk kaw la loolu preuve rek que instruction bi nga xam ne président de la république joxe na ko pour que maillage territorial bi mu am partout. le directeur général de la police monsieur Yag mu ngi koy topp avec toutes ses équipes. ak congé bu yees bi lekkoon askan wi am rafet njort ci ne ñàkk kaaraanga gi nga xamante ne yenn saa yi dafay sonal waa Mbour loolu xanaa kon léegi dina dàkk. mbokk yi loolu doon fii li gën a fës ci xibaaru marax yi ñu amoon mbégte àggee leen ko léegi léegi Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Diop dana ma fi wuutu àggee leen euh, xibaar yi ci nasaraan. ñu leen di ñaanal uh, fanaan jàmm jërë ngeen jëf